amoon ci alal yëpp ñu dem ñu jaay ko tubaab yi moo tax ñu ne leen ñun bu ngeen ñu wóoloo fii ay xarekat yi la kenn ku nekk ci yéen bëgg na sant kër kenn ku nekk ci bëgg na jàppale ay waajuram parce que ñun africain la li ñu xam mooy dignité dignité nag mi ngi ci nga mën a dimbale say mbokk ma wax leen ni su ngeen ñu wóoloo wooteel président Bassirou Diomaye Faye li nga xam ne mooy suñu koom-koom te ñu ngi ko jox tubaab yi dinañ ko récupérer loolu su ko ci réew loolu engagement la bu ñu jël ak yéen. kon gars yi jamono ji may wax ak yéen li ñuy yëgal une très bonne nouvelle mooy. ñi nga dañ leen tuddee woon ay forces spéciales te bu créé seen affaire dañ jël jël ay nit yoo xam ne mosuñoo def armée mosuñoo téye arme de leur vie ñu ne ñooñu ay forces spéciales lañu jàpp leen teg leen ay charge yu diis a diis ñi may waxtaanee ak yéen may yégal ni forces spéciales yooyu ñu ne woon ay terroristes lañu libéré nañ leen léegi kon ñu ngi leen di souhaité ñu génn ci jàmm. ci biir force spéciale yooyu nag ni ñu ko tuddee daf ci am doomu Tamba boo xam ne taxawaayam ci parti bi dafa am solo muy ki ñuy wax Kaba Diakité kon waa Tambacounda xeex bi musu leen ci des gannaaw ñu war yeggali léegi lan koy yeggali du ay xeer du ay sànnante du ay dóorante carte électeur moo koy yeggali kon jël leen carte yi dimanche yu yeggali liggéey kon ci turu président Bassirou Diomaye Faye ñu ngi dellu si ne leen am nañu yaakaar ci yéen contrat la ñu bëgg a signé ak yéen contrat moral mooy jox nañu réew mi bu boobaa nag ngeen seetaat bu ngeen joxee bii di ngeen gis changement yu ama am solo ci réew te ngeen xam ne vous avez eu raison de nous faire confiance lii mooy contrat bi ñu proposé ñëpp sant guddi na li ñu àndal sonn nañu liñ leen di ñaan rek li may daane rek li ngeen gunge ñu gunge bu jaar yoon parce que ñi ñu àndal ñëpp sonn nañu. yéen a ngi suivre caravane yi sécurité bi ngeen gis ñaari fan a ngi ni nelaw yi boole ko woor kon ñu ngi ñaan ngeen gunge ñu ñu mu gën ñu joxante rendez-vous dimanche pour célébrer la victoire au premier tour du président Bassirou Diomaye Faye asalaamaaleykum wa Mama, waa Tambacounda dama fàtte woon lu am solo mooy xam ngeen ni amoon na ab candidat boo xam ne bàyyi na candidature ñëw jàpp ci ni doomu Tambacounda muy seen doom seen frère monsieur Alpha Alpha Thiam mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko kon ñu ngi leen di souhaité yéen ñëpp bonne nuit et bon ramadan jërëjëf